xam ngeen ne pour daara yi programme biñ ci am mooy damay damaa wax ne dafa am benn conseil supérieur des de religieux bu ñuy teg day am benn branche boo xam ne nii branche daara la boo xam ne nii liggéeyam mooy day mettre en place académie di daara pour que daara yëpp am façon leen boo xam ne ni moom la ñuy jàngale waxtaane ko ak ñoom parce que ñoom ñoo koy déterminer fexe ba def en place tamit politique boo xam ne ñoom tamit dañuy am accès au logement pour am seen i suuf am seeni suuf ak titre foncier ak euh, jàppale leen ci démarches yi administratives yi mu yomb defal benn dispositif de formation professionnel ay apprentissage boo xam ne nii ci biir daara yi danañ am formation ba nga xam ne nii xale yi tamit buñ génnee rek danañ mën a liggéey ah defal leen tamit encadrement subventionné leen ba daara bi maam ay am ay projet yoo xam ne nii dana ko mën a autonomie di mën a gérer boppam dutu laajati ndimbal fenn muy projet yi nga xam ne nii mooy pousser développement yi muy agriculture élevage ak pêche ak artisanat ak lépp lu jëm ci transport ak yeneen yoo xam ne ñoom danañ ko soxla fexe ba nga xam ne nii eh, dana am synergie entre ñoom ak école tubaab bi nga xam ne ni da nga gis ku jóge ci école tubaab bi ñëw jàng si ci daara ji wala ku jóge ci daara ji dem jàngale ci école tubaab bi bu fekkee daara yi nga xam ne nii adapté wuñ njàngu euh, tubaab bi nga xam ne dana am synergie def tamit comme journée bu mel nii am na fekk journée bi état bi def ko genre partenariat yokk doole kii ba nga xam ne dana nekk journée internationale ba am doole ndax privé lu man-man état moo ko ëpp moo ko ëpp doole mais état du ñëw remplace ko mais day jël joxaat ko privé bi jàppale ko ci subventionné ko mu gën a def lu gën a yaatu noonu pour que prix yi gën a am doole mu gën a yaatu ci àdduna bi nga xam ne dañ mën a invité ay waay Arabie Saoudite ak France nga xam ni Sénégal mën na nekk un jour capitale internationale pour jàng alxuraan ndax tey daara ji dañ ko euh, soofantal ba nga xam ne boo na dong daara rek gis naa benn caricature bu doon caricature yi sax buñ leen dongal daara ci candidat yi moo wone mayor Aliou sol ñu daal moom moo dafa xam ne daara ji passé nañ foofu loolu daara yu yàgg yàlla wala ñu nekk ci mbedd mi di yelwaan tamit mën naa am ñu ci bari jógewuñ ci daara ñu fexe tamit waa daara ji jóg loolu ñu jox leen doole joo xam ne danañ mën a euh, xeex loolu ci xeex boo xam ne du xeexu euh, jël di leen yóbbu fenn fu jaaduwul mooy jël leen yóbbu leen insérer leen ci daara yi nga xam ne nii mooy daara yi reconnu par état état bi def tamit benn diplôme d'état boo xam day nekk diplôme officiel boo xam ne ci daara ndax tey kenn ku ne ci école bi nga nekk yaay def signé rek sa diplôme boo xam ne nii mën nga dem fenn ñu ne la reconnaître luñ ko ak tamit defal ay programme de bourse mooy xale yi nekk ci daara yi jàng ñuy am droit ci bourse comme ni ko ñu nekk université Cheikh Anta Diop euh, di def def na en place pour chaque département moo am benn centre d'accueil pour les orphelins